yow Aïda. waaw yow fi nga la bàyyi woon ba léegi yaa ngi taxaw nii yaa ngi fi toog nii. di puudaroo ko defaru rek. ah nu may def. nga toog <laughs> bëgg àdduna ma ne avec balaa jóge nii. Hmm. toog a toog ba xuuge ndakatu avec koor nii lay mel. Maodo daa mel ni daju kenn nekk fa. kenn ku fa nekk. maa toog ba sonn te xoolal maa ngi fa yaakaaroon xaalis xam nga samay mbir. da ngaa bëgg dërëm nag bàyyi mu ngi lay a yàq si xaalis de. waa ci loo nekk nag. na naka koor gi nag tey baa saful. sonn ma sax. Mm. mais am parlant de xaalis bàyyi daal fi la ñëw toog fi la jonkon. fii nii fi la jonkon sànq ñëw jege ma naan ma daam ko ma la bëgg a may. ma ne ko kan mu ne ma xaw ma kan sa locataire bi nu mu tuddati sax. Abdou. waaw abdu Abdou Abdoulaye ah. waaw muy aaral mel ni arab. loolu koy naan Abdoulaye di xëcc. loolu koy wéy naan daal kooku dafa am xaalis. waaw social la nit ku baax la mën na ma yoru de wax na ma ko dafa bëggoon daal. <laughs> moom daa nee bu ma réfléchir pour mu may ma ko déjà sax nee na da koo da koo di 15 millions. yooy nga ne bàyyi kan la lay may laa wax. Abdoulaye sa locataire. ah bàyyi nag mi ngi may bëgg a yeb de. yabu la man la yeb. bàyyi nag mi ngi may bëgg a traversé nag. yéen a ko fal de bàyyi yéen koo fal nag. yow bàyyi mi xam nga Abdou mi li mu nekkee moom baay moo ko ci bàyyi li tax Abdou di fekkee be moom daal boo nee cere ji neex na daal mu ne tànk laa ko doon mooñee ah.

ah la kan, kan moo fi kilifa man may magam kan? mais yow man maay sa kilifa maa leen boole kilifa yooyu kon ginaar cuuc ak i nen yàq baxal baak omelette baak yëpp may borom yow Aïda war nga ne ko dama lay may Abdou yow Abdou ngay may Aïda ndax lan loolu <laughs> nga xaa war damay yow xam nga lu ma lay yëgal waaw Abdou mii gis nga yaa ngi bay bayal di def ci moom loo xamante ni boo di nga ko bëgg di gis Abdou mii dóorkat la mënoo gëm loolu bal ki nga la du morom la wax nga li ma la wax na nga fexe ba boo ci amee gàcce rek na nga tusoo ay sa yoon nekku ci yow doxaanante bi luy soyoon lu ñu ne dama gis ah est ce que sama àndu ci sëy bi dina am da nga nopp lay yaa ngi koy bàyyi xel de kon lu soyoon lu soyoon wàcc moom daanoo ci gën a gaaw boo ci bañul damm damm xamal lan comme Aïda moom lu ma gis ci dus ay ah jóg yooyu itu jógi yàgg jógi final. te van gan gi gan gi jógi gana na koy def ndox muy jàll dégg nga li ma la wax kooku yéen ñaar la yow yaa ma yab ay yow yow man maa dugg ci yow dof bi nga xam ne yow way yooyu ngay def ah. xamuñu li ngay wax comme ay bërigo yu daal kenn xamul li ngay wax ngay fàtt nit ñi ko lëjë nga yow boo amoon fukki dof yu mel ni man yow xam nga ni kon sa lépp tekki na may dee da ngay gën a yokk laa la wax fukki yu mel ni man damay dee ñaar yu mel ni man rek soo ko amaatoon yow baaraam ngay doxee wax jàll ci biir jàll ci biir ay bala maa jàll ci biir ah. naa la wax li ma la bëgg a wax pare rek leen laa la wax yow li tax Abdou lu kon neex lay def ci biir kër gi waaye Abdou ni moom moo one moom tey moo ñi moom suba moo ni moom Abdou yaa ni moom bu Abdou ya